waaw ah, ñoo lay fay ñoo lay fay ñëpp. dafa da ngaa namoon arène nationale. waaw waaw trop trop tey dañoo ñëw seetaan si ku su mel ni suñu doom day soq ku su mel ni suñu mag Paate Balde dañoo ñëw tey seetaan fileer di leen ñaanal yàlla na suñu borom defal ndam rek. Paate mere na booy dañ ko contact loo ba mu tooy. dégg nga. Paate mere na Jacob nee Jacob da ko contact loo ba mu tooy. waaw dëgg la dëgg la fan yii tooy métti la tooy mais yàlla ko yàlla fayee rek ah, ah, ndam Paate moom xam na moom champion dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm mooy loolu sa kër ga fa laa doon def direct mu ne gala sedd nañ ko tàngal wala moom mu bàyyi laam parce que daa sedd. waaw loolu la ma waxoon ne daf na ma woon tey ko benn galaaj loolu la waxoon de. xam nga Paare moom la Paare moom kenn mënu kaa natt. <laughs> nee na lii la ñoom Amady daj seddaay bi ñuy sangu ay galaaj. mooy dëgg la dëgg la loolu la man keroog maa ngi toog naan sama combat bu nekkoon période bii fan laa ba ngay jaaru ba ngay jaaru ba ngay jaaru ba sonn moom. moom kay ba ngay <laughs> Ah, Paate Balde kenn dootu ko jàngal bëree yow xam nga ko ci ndox ci bëree ñu bari sax ñu naan Paate Balde sax moo dàq bëri Ama Balde moo ko mun fuuf ci bëree peut-être doole ji la dee xalaat ndax lim liggéey doy na la daal taxat pour mu jàkkaarloog nekk na mbër boo xam ni ah ku mu tolloo doole wala ku mu tolloo aar mën na la daan ay minutes comprendre moom bëre jaaxalu ko comprendre dafa am loo xam moo nekk si moom xam ne mun bëri rek doole la dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal ndam moo ñu dugg dugg si lamb bi maa ngi ko saas xam na xëy na yàlla mun na mun na portam fii xam na da koy ñaanal mu jàpp rek yàlla bu yàlla yàlla baax na. li ma jaaxal même même jaaykatu ndox yi jaaykatu ñëpp paate lañ faral. waaw dégg nga ma ne ñun sa essence paate la ñuy daw nii man mii sa essence paate laay daw waaw. <laughs> parce que mi muy paate génn dama ko direct mais mbooloo bi paate génn dama ne ama xewi na. Pek Sokab xewi na Pakola xewi na paate xew. non paata kañ paata la paata kañ paata daa war a reer reer bi. <laughs> booy booy laaj mu ne ma affaire yi mooy loolu. waaw mooy loolu affaire yooyu. mais daal lim lim indi daal dala sa xel. waaw dala xel dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal tamit soq yàlla na ko yàlla suturaal xam nga yàlla na ko yàlla may ndam xam na waaw kon ku si mel ni Modou Baye Fall ñoo ngi koy ñaanal ku si mel sama xarit Papa ñu ko ñaan yàlla ko suñu borom defal jàmm di ñaanal sox yàlla ko yàlla may ndam. lundi le premier janvier Boy Niang Modou Lo nga jege Boy ñaa loolu muy saxar di sa doomu ndey lan ngay wax waa Pikine ak lan ngay wax ñi nga xam ñoo faral Boy Niang pour ñu jàppale ndax ko capital la. waaw Boy Niang dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla suturaal yàlla ko suñu borom suturaal yàlla ko suñu borom lafal cat xam nga lu mu liggéey gis nañ ko suñu xel dal na ñun ñëpp yàlla moo si def dañ koy ñaanal yàlla ko borom suturaal yàlla na ko suñu borom suturaal yàlla na ko suñu borom gàccal bañ a gàccal jour boobu yàlla suñu borom may ko ndam loolu lañ koy ñaanal loolu lañ ko jéene yàlla na ko suñu borom may ndam. ndax bëri ak Modou na. waaw yomb na si ku xam Modou te yaakaar boo ñaa xam na Modou Lo koy ñaanal yàlla na ko yàlla suturaal tey mënuñoo wax mënuñoo def dara dañ koy ñaanal suturaal bu ñu bëgguñu cat jiituñu yàlla na ko yàlla suturaal yàlla may ko ndam xawma luy am waaye Boy Niang tey dafay boot rek dafay boot dafay boot yooyu lépp di ko bëriwaale ko tey diis ci moom. waaw Boy Niang dama koy conseillé ne ko loolu dara moom sport la loolu si boppam moom nag na demee esprit gagnant rek tey yooyu yëpp bu mu ko def si boppam na dem esprit gagnant yàlla ko suñ borom suturaal may ko ndam bu demee loolu rek combat mun na diis si moom na dem esprit esprit esprit gagnant yàlla suñ borom suturaal ko yàlla suñ borom may ko ndam. lan ngay wax waa kon muy kon waa Pikine affaire nekkul Boy Niang affaire nekkul kenn drapeau Pikine la Boy Niang di kii comprendre na waa Pikine ñëpp jël ñu ko kon niñ ko defee nii bu dima bu lëndee ñun ñëpp defee ko nii ñëw soutenir ko gunge ko yàlla borom may ko ndam ñu ñu ko feete ko. combat am régularisé nañ ko au niveau de CNG ban la Ama Baldé war a am parce que ñëpp xam nañ ne ñi meewul bor te dafa yoreel bor waa Pikine. régulariser nañ combat. waaw waaw xam nga tey kon bu ma la wax ay sama combat Gris Bordeaux wax dëgg yàlla yaakaar naa indiwuñ fi parce que dafa am leneen ak leneen loo xam ne moo fi nekk xam na ku nekk ku pareegul xam ne mënu wasu combat dañuy ñaan yàlla combat yi lañ doon xaar pour dem nekk suñ bopp bu ñu demee nekk suñ bopp ba pare ñëw wax waxu combat bi dañuy ñaanal sooku booy ñaa paare yàlla suñu borom defal ko ndam. ama ah, dafa mer la fanaanoo dafa gay amel am dafa mer. non non du question mer lépp sant yàlla rek xam na kon lu ma lay dara warul ñu tege suñ koom ñu met si ñun parce que ñun lu suñ ko am xam nañ ko ragaluñ ko. waaw boo déggee maire mooy ama gagneur la ama gagneur la xamul défaite gagneur xam gagné gagné la xam parce que direct bi noonu lañ ci ci moom moo tax combat bi tey mu ngi ci moom ci ci booy. xam nga moo tax ma ne la Franc mer lu sama kanam dama ko xam xam ba mu wóor ma trop dañuy ñaan yàlla yàlla na suñu borom lafal cat lu suñu kanam rawati bët yàlla bëri gaan yàlla na ko yàlla lafal car rek waaye kon lu ma lay wax rek lu nekk suñu xol yi yàlla na ko suñu borom def rek bu bis ba yàlla na ko suñu borom may ndam hmm, yàlla baax yàlla bëri na sa tur yeex na mais fan yii daa mel ne Pathé dafa nangu bës bi de. Pathé xewi na Jacob xewi na nangu coow. essence Pathé la ñuy daw ñun ñëpp si essence Pathé la ñuy daw. actuellement Jacob xewi na Ama xewi na ñëpp xewi na Pakola xewi na kii. Pathé Pathé yëngal. mais mais Ama Baldé gii du Pathé loolu amu amatul. non beneen affaire la. xam nga sa gii